c'est normal dans la mesure où dafa a un programme président de la république Le président bi je wax ak sénégalais yi ñu koy daf ni dindi conseil économique et social dina dindi au conseil des collectivités territoriales mais du stratégie ou la tactique politique parce que promesse de campagne la promesse de programme politique beneen bi ci nekk moi li avant ngay examiner loi de finances pour BSP, bi nga session bi war na commencer 15 octobre baaxoon na xaalis bi nga xam ne ñii muy fukki milliards ak juróom yi ñu leen doon jox par at nga mën koo dugal ci yeneen i programme donc avant l'ouverture nga supprimer leen moo gën nga bàyyi ba euh, kii bi jot loi de finance bi nga mujj defaat beneen révision constitutionnelle ak ay loi de finance rectificative parce que tant que supprimer leen xaalis bi ñu leen doon jox mënoo koo yóbbu ci programme sociaux yi nga xam ne président foofu ñu ko bëgg a

ñun amuñu majorité bo xamni ni mën nañu permettre ñuy duggal ay institutions yu bees ci constitution li ci nek nak moy candidat politique sénégalais ñëpp xam nañ li ci président djublu woon <clears throat> moy appliquer son programme du ay question de stratégie politique ak yoy ben candidat waxul ni day maintenir institution yoy ta am na yeneen xamni euh, euh euh le conseil dialogue des territoires mais président dindi na ko te amul coow parce que bobu décret rek lañ koy dindi mais yi nga xamni nak dafa laaj assemblée motax président woote tay ni nañ ko assemblée dindil institution yoy pour que bu loi de finance bi ñu war a examiner ñëw koppar gi nga xamné waron nañ leen ko jox ñu mën ko duggal ci programme sociaux wala ci coopérative agricole